nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant Maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar soxna Maymunatu Kubra soxna Maymunatu Kubra di kenn ci njabootug Serigne Touba Xaadimu Rasul gi moom soxna Maymunatu Kubra nag mi ngi soxe ko ci ñaari waajuram yu sell di Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ak soxna Amina Bousso mook soxna Xadija ak Serigne Abdou Xaadir Mbàkke ñoo bokk lépp ak ganim àdduna nag mi ngi ganee àdduna ci yéen Jolof bisub talaata ñetti fani tabaski ci xeek Zazine ñu gën koo xam ci 1325 dëppoog 7 janvier 1908 ni ko sëriñ bi ci lenn ci njabootam génnee àdduna nag sëriñ bi dafa génn ñaari xasida génn gi mu tënki ko allahu tàmbalee ko ihfas li wajhikal karimi bu ñaareel bi mu tënki ko alhadi tàmbalee ko ihdi jamiana siratal mustaqim moo tax mag ñi daa wax ne soxna maymunatu faw mu yàlla faw mu jub am njàngam alquranu karim nag mi ngi jàngee alquran fa sëriñ daam abdourahman loo ba mokkal ko bind ab kaamil jébbal ko waajuram bu sell woowee fa njaareem sëriñ bi bëgg ca loolu ngir ñaari yëpp bu njëkk bi mooy kaamil bu jigéen njëkk a bind ci loxoom bu ñaareel bi mooy Cheikh Sidiya dafa wanoon doom ju jigéen bind sëriñ bi amoon yéene lool ci am lu mel noonu yàlla njëkk koo dogalee ci moom moo tax ba kàddu yi la ko sëriñ bi wax may mun a tuddee sama takki xol ja yaa ko tekki dëxal ko ci ay mbir yu baree bari door koo jox ndigal ne ko demal fa soxna Faati mu jàngal la ak taalube liy firndee taalube googu mooy foto bii ñu ko xamee laataa ñu ko koy defal Kawlax la ko njëkk a fekk dafa yónni sëriñ Seex soxna mu ñëw Tuuba ngir laajal ko ndigal ba mu amee ndigal loolu nag la soog a fotowu wàllu xam-xamam itam mi ngi ko jàngee ci njaareem ci nijaayam ak tànni ba yàlla may ko ko mu géeju ci loolu moo tax daana bind ay taalif ci arab ak ci wolof yenn yi mu ciy wax solos weeru koor ak weeru gàmmu wala muy soññee ci li dolli pas-pas ci sëriñ bi te muy li yaatu lool loo xam ne mën na ab diwaan xam ne dajale nañ ko ñu jël ay taalifam ci arab xasiida gi nga xam ne daf ciy tuub di ci dellu ci boromam mu tàmbalee ko ci bismi ilahi allazi la rabba siwahu wal muxtaaru abdul hibba inni talabtu tawbatan lillahi minhu taala bi rasulillahi inni ubaydatun daifatun laka ma li huna daraja yi fadlaka am na itam yu wolof yu siiw yu mel ni bi muy soññi boppam ci sëriñ bi mu tàmbalee ko ci Maymunatun bintul Xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bi mag bi déem am nga ci ngor dara dara kon soxna Maymunatu Kubra di kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gi ku ne xam na ne eh, kenn du tudd laylatul xadar te tuddoo ci jëmm ji sell jooju ndax ku ko fonkoon la te ku ko daan dundal la yan nañu ko yàlla fayal yan na yàlla yokk ay leeram te tax ci